Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. làmb nag dafa nekk ci crise crise bu mu nekk benn mbëri am nañ ci part de responsabilité promoteurs yi am nañ ci part de responsabilité waaye CNG am na ci part de responsabilité parce que làmb boo koy jiitee mu nekk ci crise yow war nga woo ñu ko ñu ko ŋànk pour ñu toog jàngat état bi tamit toog jàngat parce que tamit làmb ji bu ñu fexee ba mu ba mu ba mu ba mu nasa dina métti lool ci Afrique ci Sénégal fii te benn affaire mu ngi juddu te lu loo xam ne nii ba Sénégal yi bàyyiwuñ ci xel muy xama xama mbëri bëri bu ñuy def Amérique maa ngi fàtte turu turu làmb boobu noonu ah luy la luy rey làmb ji si la bokk mbër yaa ngi dem États-Unis des fa parce que amatuñu combat lan la dañ fi ñëw xam nga mënoo nekk Sénégal nag ñu lay laaj dépense guddeeg bëccëg amoo loo leen jox da dem wuti da dem ñafe ji Ibrahima looloo ko dawloo keneen keneen looloo ko dawloo kon nanu fexe làmb ji nga xam ne nii ñu ko ñu ko ñu ko ŋànk jéem a toog ñi seet làmb ji naka la ñuy def ba tege ko ci euh, kii mu mel comme 2011 2010 2009 waaw. Jéy euh, yaakaar naa ne euh, kala boobu moo moo kala boobu lépp lu dal Tapha Tine kala boobu la ko jëlee kala boobu yoon yoonu Tapha Tine nekku ci woon ñàkk staff bu baax billahi moo ci dugal Tapha mais ta club boobu Tapha Tine warutoon ci bokk club boobu Tapha Tine duutoon yoonu Tapha Tine duutoon yoonu Zos Zos rakam bi moo ci waroon a dugg dégg nga Tapha Tine warutoon dugg ci combat bi ci club boobu noonu ah club boobu beneen beneen booy leen waroon a jël dugal ko fa mais staff boo xam ne nii staff boo xam ne lu ñu la wax rek nga ne waaw en tout cas yoon naa ponkal ponkal mi mën na bëri ku ne non non du noonu. làmb du noonu de làmb kenn ku ne mbër am na fooy toll da ngay sàmm sa carrière waaw club boobu moo lor Tapha Tine ma pap li ma la li ma mën a wax ci papa mooy caaj nga mbër daa am daa am caay-caayu ko am Modou Lo da ko mbër da ngay caay-caayu làmb mbër da saf xorom tuuti mais Tapha dafa yaacaaraat rek yi nga gis nga rëg-rëg tey lépp lu mu am ci làmb moo ko may boppam moo imposé boppam Sénégalais yi dégg nga mais doone man ponkal laa diryanke laa ku baax noonu làmb du loolu le làmb dangay am caaj am feeling waaw di imposé sa bopp nit ñi taaw face à face ak ki ngay bëri mais koolal ab Ama de nu ko daan dafa yomb tëb rek jël ta tànk bi yow nga seenaan ko mais mënoon na jéem a bañantu sax peut-être fañ téye tànk ba moo moo moo moo moo ko trompé en tout cas lu ma la mën a wax ci Tapha Tine mooy Tapha Tine dafa ñàkk caaj maanaam xorom ci moo des comme li nga ko waxee xorom ci moo des wallaahi boo amoon caay-caayu làmb am ay feeling di wàcc di def ay demi flexion genre yooyu noonu dina dara ci làmb mais xam nga peut-être nit ku nekk loolu yàlla bindee. seet ndaw Samba li ngay neex na lii dama koy namu ci yow quoi. mooy namm lii ci yow walaay ndeysaan moo tax yow waroo di géej ci groupe yi del dugg si kàddu yu mel nii dañ koy nam wallaay macha man li ma bëggoon li ma mu leer ma lépp leeralal nga ma ko. Leyti Tapha ci làmb Tapha Tine la comme ni ko kii waxee rek mooy buntu VIP yi Tafatin lenn loo xam ne daf ko manqué ci làmb mooy euh, comment dirais ça staf bu baax staffam ñoo xaw a benn benn instant parce que warul mër am na fooy toll warul lu lu jot rek bu ñu la si nga nangu non non du man du ponkal laa rek man ñi ragalu ma kenn fii kenn ragalu fi kenn mais dafa am fooy toll sa plan de carrière danga koy defar Tafatin loolu la manqué ko koy defar plan de carrière am maanaam du kuñ la jox nga ne waaw non làmb da ngay sàmm sa carrière xool fi nga war a yegg parce que da ngay viser na sama moroom ñi fii ñu yegg man dama fa a yegg loolu la Tapha Tine manqué mais avenir am ci làmb Tapha Tine ponkal yi dañ ko waroon jël ponkal yi ku jëlu yëpp dañ koy ragal dañ koy bàyyi xel ñu ko fi jëlu actuellement dañ koy war dañ ko mën a jël avenir am ci làmb nag mooy mu taxawaat xoolaat teg tànkam bu baax maanaam bu bëgg a bëri rek bu mu la dugal ci loo xamut lépp looy def na ko teg ci yoon na xam na nag prochain combat bu fekkee ne dafa def affaire de cuune kon làmbam yàqu làmb moom dootul jag ba faw kon lépp lu muy def ci combat bi muy mënta am nag na na xam na xam fu muy teg tànkam bu baax a baax baax waaw lu ma gisee carrière làmb den moment yi mooy làmb dafa nekk ci crise démb wax naa ko fii posé naa ko kii eh, sunu grand bi Assane làmb dafa nekk ci crise kiis lan CNG euh, nu mu tuddati sponsor yi dem nañ sponsor yi ponkal yi nekkatuñ fi promoteur yaa ngi fugu dégg nga euh, ñu ngi euh, taxaba tabaxal nañ ñu stade pour lan pour lambo stade bi kenn mënu cee tëgg lambo lamb bu tax ñu ne lambo grand combat yi kenn du ko fa tëgg lan mooy waral lan moo lan stade bi grand combat bi xaju fi ban grand combat xaju fi nañ fa dugal lu fa mën a dugal lu fa mënta dugg ñu xam ne lii mënu fa dugg mais stade bi stade bi mel ne macha allah muxtaar ñu ne gannaaw combat xaju wallahi aji bu fa dugalee Modou Lo Balla Gaye combat ñu fa dugalee Modou Lo Balla Gaye da dañ koy da dafay fees te ko stade bi bu feesee day rafet pour te di layti bu feesee day rafet xoolal combat yu xam ne nii sax feesu plein mais lu mu jot am mais stade bi dafa rafet comme tubaab bi bu ñuy fóol jéey yow sama sama waay nga xam lu ma loxoon waxoon ci suuf rek. man soo defoon émission bi saa nga tàggu nga xëy xëy na ne man ndaw ko ndaa yow kat dañ la soxla léegi léegi ni billaahi wala naa ko def parce que respect bi ma la jox maa yoo xamante ne bu baax biñ xamante léegi yàggut mais am na lu am na loo jàpp <laughs> ngir man kon wax digg yàlla cër boobu dama la koy delloo ba mat sëkk barke alquraan karim loo ma bëgg rek bëgg naa lu ko raw te groupe bi ñëpp amul kenn koo xamante ni tey jii euh, maa ngi la jàppal lenn tarafatan ay ni non non jamais de la vie comme ni ma koy waxee rek benn mbër du ma boole kenn ci biir groupe bi Modou Lo amul kenn ku ma mën a boole ci yéen ñi muy fant bale gay beeg fant Modou Lo baag fant Ama Baldé bi laa ci yemale yéen ñëpp laa yemale même pied d'égalité cër bu ma leen jox duma ci dindi dara parce que on sait jamais dafa tëradi waaw. man nañu nekk fii ñun supporter di rayante fekk mbëri ñu ngi wote waxante téléphone seen suuf waañ kan mooy toor ñun ne kon lépp lu waaye def rek nang si bàyyi xel bu baax cër boobu lu laa leen delloo bu wér waaw waaw kat euh, <laughs> ci yu mbër daan mu neex ma lool ci làmb léegi xam nga laaj lu garaaw de léegi <laughs> kat ci yooyu mën naa jël Balla Gaye Ousmane Diop bi Balla di def rotation boobu noonu mu nekk exceptionnel ba tey gis ma ku ko def ci làmb waaw ak bi nga xam ne ni tey ji Modou Lo bëri na ak Ama eh, kii eh, ak eh, comment dirais ça waay waay waay waay Eumeu Sène combat bu métti te yàgg ñu teg ko teg ko seen lu kenn foogutoon daan ko jël bu rëy yaakaar naa ma seen jël bu leere boobu noonu bëri ko ko daan hmm? ak Sitbad surtout Bombardier ba <laughs> ki Yékini ak Mohamed Ndao Tyson mu nekk site yoo xam ne nii tamit site yu garaaw la gars yi di njëkkante teg na bopp wala tegul bopp xam nga kenn xamul ak euh, ban site sax site bu rëg-rëg daan ki nga xamante ni mooy Gris 2 bu kenn exceptionnel la ci nit ñi. mu nekk site boo xam ne nii site bu exceptionnel Sénégal gépp yaakaar ne Reug Reug mënul loolu mu ñëw def lu mel noonu yaakaar naa quartier bi daal bokk na ci site yi ma neex si làmb. Grand Dieye ñu wax si CNG bi eh, dama yaakaar ne eh, CNG pour ñu wax moom duñ ci sawar duñ ci sawar parce que tamit yaakaar naa CNG bu fekkee maguñu tamit ah moroom lañ de biñ dalee nekk ci CNG ba léegi. comme ni ko sama champion bu waxee rek laa koy weexee maanaam boo nekkee di jiite benn mbir di ko jiite nit ñi di kontaan nga koy nit ñi di kontaan nga koy jiite nit ñi nga dem ba benn moment nit ñi commencé am métitlu wala boog nit ñi commencé am benn am baat yu lay jam yow war nga toog jàngat bopp war nga toog xoolaat li ngay doxalee lan la wala book nga jéem a rectifier waat jéem a tegwaat ci sart bi mais plus de vingt cinq ans nga nekk ci benn structure ne mukk doo fu jógee. te ku wax nga rëq ndigam loolu moom ma gën a métti ci loolu ku wax nga rëq ndigam mais mëri amatuñu droit wax amatuñu droit wax ci làmb hmm? mbër bu wax nga jël rek moom Modou Lo li xam ne mooy licence am ah euh, Gris Bordeaux wax nga dàq ko ci làmb Bombardier la même chose ah seen arbitre yi am lu ñuy réclamer nga ne déedéet pourquoi pas ñun ñëpp bu ñu defee li nga xam ne nii mooy seen réclamation yaakaar naa CNG comme moo njaboote waroon na woote ñoom ñëpp ñi jéem a seet ban terrain d'attente lañ def pour doxal làmb ji mais bu fekkee ku wax rek nga rëq ndigam kooku dafa ñëw pour yàq làmb ji